convoqué chez lui bi ñu toogee c'était une réunion restreinte elles en faisaient partie ñu toog mu ne Karim mooy candidat bu dul Karim du am candidat ñu génn man je ne personne qui se valse dans l'hypocrisie parce que man dëgg fu ma fekk fa la may bàyyi bi mbir mi amee ñun ñëpp ñu toog waxtaan ñu génn ñu réunir parmi ces gens qui étaient à l'intérieur ils ont désigné la personne de maître Madické Niang loolu moo indi candidature am parce que ku dee ak sa bàmmeel ñu jiital ko man ma bokk suñu wax ñeneen ñi ñu bokk ñu wax ñu dem ba si biir ñoom ñu yollee ko mel ni kon dañu bëggoon dañu bëggoon dañu bëggoon génnee président ma Madické ñaaw si parti bi man damay gor te gor su nekk sa kàddu nga am man joxoon naa ko suma kàddu ne ko ale yéwén mënuñu dem Karim ñu ne ko ñu ne bu ñu amulee candidat kenn du doon candidat loolu dafa mel ni ñun ñun tekkiwuñu dara man leen man loolu du ma ko nangu et je l'ai dit devant le président euh, Wade l'histoire est là mun nañu feuilleter l'histoire moi je lui dis ma ne ko président vous nous avez élevé lu ñu am tey yaa ñu ko jox waaye ñun dañoo participer ci sa élection mais xel mënut a dégg sa doom ñu condamné ko mënut a bokk ci appellation nga ne ku demul keneen du dem loolu dafa mel ni ñun tekkiwu ñu dara. non c'est pas que tekkiwu dara no ne ko non non même euh, rek. Karim Wade mais mënul dem xam nga nit nit. Karim Wade était le meilleur profil du parti démocratique sénégalais. et la preuve tous les autres issus des flancs du PDS yu dem élection jegewuñu électorat Karim Wade. mais may ma bu ñu bu neutralité amoon. ah amul campagne de diabolisation et de liquidation. président Madické Niang avait le meilleur profil ñu bëgg ko moo ñu bañ ko moo ne. comment ça il avait le meilleur euh, suñu début suñu début campagne askanu Sénégal gis nañ ko bi ñu demee ba xaw tiital nit ñi la ñu la ñu commencé diaboliser. des gens avec qui nous avons participé le parti démocrate sénégalais qui nous avait valu même ñu tëj ñu kaso def ñu lu nekk ñu gore bu ñu tax woon bu ñu mënul woon jàppale dañu war a seetaan. mais charte parti bu bindee dara tënk ne diw su demul su jalgatee charte parti bi il est exclu automatiquement mais ay góor lañu si lañ génn man ma dem créer son parti di doxal. Madické est le meilleur était le meilleur candidat pourquoi génnul deuxième pourquoi yóbbul Macky Sall deuxième tour. pourquoi génnul troisième. Euh, may mën a sos sos ak wax ju bon xajul si doomu aadama yow tuumaaluñ la barki dem fii tuddee la Anita ba ñu bëgg eh, ñëw fii taal dugg si loolu. si dinaa si dugg. ne compare pas. Ex si exemple laa lay jox c'est si si. Ah. dama la bëgg wax ne sos ak wax lu dul dëgg dafa xajul si doomu aadama man. façon tuuma bu nekk jox nañ ma ko. ban tuuma lañ tuumaal Madické boo xam ne ça eh, lui a valu de récolter soixante cinq mille voix. taxaw ñu ne 1,48 pour cent de l' pour cent. la. ah. candidat président Macky Sall la. campagne bi Macky Sall ko financé. ce qui reflétait du pur mensonge. xam nga xam nga Madické moom pas Madické moom sama vraiment sama sama xarit la bëgguma ñu dugg ci débat boobu. nañ génn foofu parce que c'est pas le c'est pas le ah, sujet en tout cas en tout cas 2019 les Karim a eu raison sur vous les faits ont montré que aucun candidat du PDS mi mat Madické mi génn des flancs du PDS il n'a pas pu avoir 2 pour cent mais suñu doxaloon dëgg xëy na boo leen solidariser woon de Karim Wade le résultat aurait été tout autre mais là n'est pas n'est pas le débat on en revient au mais ko paree ne élection yi